ginnaaw bañ sant yàlla julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ndokkeel leen ci weer wu tedd wi nga xam ne moom la ñuy dugg mu weeru gàmmu weer woo xam ne ki ci feeñ suñu borom moo ko def ci ci coobare boppam mu doon ki gën ci yonant yi doon ki gën ci doomu aadama yi te loola ceeb coobare suñu borom la loola nag tax na buñ ci egsee ñu kooku nga xam ne nag moom la yàlla tànn def ko muy ki gën ci doomu aadama yi ci lim bind lépp mu feeñ ci weeru tedd wii ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla jagleel ñu nekk aw xeetam bu bu ñu egsee ci weeru tedd wi war naa ñoo am loo xam ne war nañ koo delloosiwaat ci suñu bopp xoolaat ndax moom moomee nga xam ne moom la yàlla tànn def ko muy ki gën ci doomu aadama yi ci lim bind ci ci lim bind moo mu def moo moo ci gën kon kooku nga xam ne moom la ñu yàlla jagleel bu ñu egsee ci weeram war nañoo xoolaat suñ bopp ndax lam bëggoon ci ñun ak lim li nga xam ne moom la andi woon ci ñun ndax loola ñun ñanga nga ca ba tey wala ndax teggi nañ ko wala ndax am na loo xam ne manqué nañ ko ca bu ko defee bu fekkee na ña nga ca yoon wa ñu gën a sant suñ boroom gën a góor góorlu ngir xam ne cant ngir xam ne lu baax day boo bëggee mu gën a yokk bëgg mu gën a dëgër ci yow mooy da ngay sant suñ borom bu mu jokkee ne nekkuñ ca loola itam yàlla def na am am na xéewal gu mu nu jox muy xéewalu jégglu ak tuub delluwaat ci moom ndax loolu ba tey itam ndimbal la ci lépp loo xam ne def nañ ko ci loo xam ne bokkut ak li ñu war a nekk wala loo xam ne def nañ ko te bokkut te ci lu ñu war a def kon nag bu ñu egsee ci weeru tedd wii te weer woo xam ne suñ borom jox na xee xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xéewal yu bari yoo xam ne ngir jëmmi yonent bi sa alayhi wa sallam moo tax mu defal leen ko xéewal yooyee bokk na ca suñ xam nañ ne ñi jiitu woon ci xeet yi nga xam ne ñoom la suñ borom daa yónni ay yonent am nañu ay bàkkaar yoo xam ne suñ ko masaa def suñ boroom da leen di mbugal ci mbugal yi tar ñii dafa wëlbati suuf ci seen kaw ñii da leen a labal loola lépp nag mu xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow sa xeet bii nga xam ne moo aj ñoo nekk ak yow loolu nga xam ne mooy mbugal yooyee du ma ko def ci ñoom mukk li feeg yaa ngi yaa ñoom yaa ngi yaa ngi dund ci seen biir boo dund ci seen biir tam am na xéewal gu ma leen joxaat gooy boo xam ne li feeg ñu ngi koy def mbugal yooyee du dal ci seen kaw boo nekkee ci jëm mbugal yooyee du dal ci seen kaw li feek ñu ngi may jéggalu itam mbugal yooyee nga xam ne moom laa defoon ci xeet yi nga xam ne moom la jiitu woon loola du ma ko teg ci du ko teg seen kaw loolu lépp du ñu woon kon xéewal goo xam ne suñ borom defal na ko xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay xéewal yoo xam ne wuute naag ñi nga xam ne ñoo nu jiitu woon ci ay yonante ak xeet yi xam ne ñoom lañ leen ñoom leen leen yónni woon ndax xam ne buñ de ndax xam nañ ne buñ dee xool xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wii nga xam ne moom la yeneen suñ borom yónni ci ñoom Seydina Muhammad te xamal nañu li feeg yaa ngi ci xamal ko nekk ko li feeg yaa ngi ci ñoom mbugal yi nga xam ne moom laa doon teg ci xeet ci xeet yooyee du ko teg ci ñoom li feeg ñi ngi jéggalu itam mbugal yooyee ma ci xeet yooyee du ma ko teg ci ñoom te xam nañ ne jamono ji yaakaar naa buñ xeetee buñ seetloo danañ gis ne yaakaar naa bakkaar yu bari yooyu nga xam ne moo taxoon ñu bëggal ñooñee day danañ ko gis ci xeetu Seydina Muhammad waaye nag xéewal googu nga leen suñ borom defal tax na mbugal yooyee nga xam ne moo daa àgg ci moo daa àgg ci xeet yooyee moom du àgg ci du àgg ci ñoom la bokk na itam ci xewal yi nga xam ne xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ borom defal na ko ko mooy suñ borom moo wax ci wax wu wér joo xam ne da koo dëgëral ngir xam le ne xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li feeg ñi ngi jàpp ci seen pas-pas nañ ko war a jàppee di góor góorgóorlu nañu war a góorgóorlu nañu xam ne nañu yëg ne waxtu wu nekk maa ngi ci seen wat buñ te dara buñ la ci dara buñ jàq ci dara te loolu yaakaar naa ne loolu dañuy danañ danañ mën nañ koo dund wala mën nañ ko wonee rek ci xew-xew bi weesu muy xew xew-xewu màggal gi ndax xam nañ ne li ko waraloon mooy kanga xam ne moom moo moo moo waral bis bi moom xew jàkkaarloo na ak ay noon yu bari ci ay pexe yu bari waaye nag ngir gëmamu yàllaam ak doyloo yaram ak yaakaaruk yàllaam tax na ñu xeet maanaam xeet yu bari yooyee wala ngànnaay yu bari yooyu ak mbooloo mu bari moom ay mënuñ ci moom dara kon loolu moo ñuy won ne li ñuy war a li ñuy mën a dimbali te mën a tax loo xam ne moom mooy tax ndigalu ndimbalu suñu borom loolu di ñëw ci ñun mooy faw ñu gën a góorgóorlu ci gën a jàpp suñuy pas-pas gën a góorgóorlu ci di jëf li nga xam ne moom la suñu borom bëgg ci ñun di gën a góorgóorlu ci doyloo suñu borom ak gën yaakaar loolu rek mooy tax li nga xam ne moom la suñu borom dëële ñu mën cee jot ci jotin wu kawe suñu jot ndax xam nañ ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa am na xeex bu xewoon ñu di ko wax xasootu oy nay ni booba yonent bi sallallahu alayhi wa bokkoon na ca ña doon xeex ca xeex boobee waaye xam nañ ne dafa am lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon waaye jotub tax ñu gisee neneen ñu doxee neneen ñu bokkut ak war a doxee tax loolee andi a jéggi loolu lépp mooy poñatum àdduna képp loola tax na seeni noonu def nañ ci ñoom loo xam ne tax na àdduna li muy yaatu yaatu mujj na xat ci ñoom lool àdduna li muy li muy rëy mujj na xat ci ñoom ndax gis nañu ne tey jii taxaw nañ ci seen kanam yi noonu seen noonu def ci ñoom loo xam ne bokkut li nga xam ne moom lañ yaakaaroon ne danañ ko mën a dana danañ ko mën a def ci ñoom loolu nag li ñuy won kon ne ngir ñu mën a des waxtu nekk ci dimbalu suñ borom ngir ñu mën a des waxtu nekk ci jàppaleeg suñ borom faaw ñu doon ñoo xam ne dañuy góor góorlu ci gën a dëgëral seen i pas-pas ci suñ borom gën a góorgóorlu ci gën a yaa gën a dëgëral seen yaakaar ci suñ borom gën a dëgër lu gër gën a dëgër dëgër dëgër lu itam ci topp ndigal yi nga xam ne moom la suñ borom digle fas yéenee sori li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la tere loolu li feek ñu ngi ci buñ buñ buñ tiit dara buñ yàq dara moo xam ci àdduna sii la moo xam ci alaaxira nga xam ne moom lañ jëm kon nag suñ borom mi nga xam ne moo mën a téye ay pas-pas moo mën a tax itam ba duñ jaar fu ñu wër sa mën a jaar yàlla nañu dimbaleel boppam taxawul nu boppam ba li nga xam ne ba waxtu wu nekk suñ ngëm di gën a dëgër ci suñ borom waxtu wu nekk itam suñuy pas-pas gën a dëgër ci moom waxtu wu nekk itam suñuy yaakaar gën a dëgër ci moom waxtu wu nekk itam gën a doy doyloo gi ñuy doyloo suñu borom gën a dëgër ndax loolu rek mooy tax liñ bëgg ñu mën koo am ni nga xam ne ni lañ ko yaakaare loolu mooy tax itam ñu mën a taxaw ni ñu war a taxawe loolu mooy mën a taxaw itam mooy mën a tax itam dara lu ñuy tiitloo wala lañ jàqloo mën a nekk du mën a nekk suñ kanam loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla ko defal ginnaaw loolu nag ñu tàlluwaat ñu tàllalaat suñuy loxo ci weeru tedd yi nga xam ne moom lañ nekk te weer ndax weer la woo xam ne warees naa mën a am yaakaar ci weer wi ndax lu tax ñu war a am ci yaakaar ci moom mooy ki ci feeñ yàlla moo waxal boppam ne ko yow li la tax li tax ma yónni la da ngaa nekk ngir nga nekk yërmande doomu aadama yi kon nag ka nga xam ne suñ borom a ko yónni te ba mu ko yónnee da koo def ne ko dama la dama laa def ngir nga nekk yërmande doomu aadama yi kon kenn ku ne xam ne ne weer wa mu feeñe ku ne war na caa mën a yaakaar yërmande suñ borom ku ne mën na caa yaakaar itam loo ñaan suñ borom te mu doon loo xam ne lu lu jaadu la lu war a nekk la suñ borom mën na koo defal ñoo ngi ñaan na kon suñ borom mu gën a dëgëral suñu bas gën dëgëral suñu yaakaar suñu borom gën a dëgëral suñu ngëm ci moom gën a yee gën a dëgëral ci suñ pas-pas ci moom ndax loolu mooy li nga xam ne moo nu mën a jariñ gën noo dimbali itam ba lépp loo ba suñ tànk bii nga xam ne léeg-léeg mu dugg fu mu war dugg mu téyal nu ko moom suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan ba du dugg fu mu war a du dox fu mu war a du def lu mu war a def loolu suñ borom mën na ko jàpp na yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu itam ñi ñaan suñ borom lii nga xam ne mooy feeñ ci mooy feeñ ci xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay balaa yoo xam ne wuute na lool ak la daa xeet feeñ ci xeet ya nga xam ne ñoo jiitu woon xeetu Seydina Muhammad ñu ngi ñaan suñu borom moomu nga xam ne moo nu tin ngir jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mbugal yooyee ak ak tëkk ak yooyee nga xam ne moo daa xew ci xeet yi xew xewut ci ñoom xewut ci ñun ñu ngi koy ñaan kon ci daraje weeru tedd wi ak daraje ki mu ci feeñal ba li nga xam ne mooy feeñ ci ñun te mu doon loo xam ne li ñuy jaaxal la te moom suñ borom moo am kàttanu mën koo dindi li moo am kàttanu moo am sañ-sañu man koo dindi moo am man-manu mën koo dindi dindi yàlla dindi loolee yàlla ñu gën a tin gën noo yërëm ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu itam ñaan suñ borom ci weeru tedd wii Seex Mamadu Muntaxa mi nga xam ne moom nekkal Sëriñ Tuubaa te xam nañ ne dara du itteem lu dul lislaam ak doomi aadama yi yërmande yi doomu aadama yi la ju fees dell moom itam xam ne nag lislaam mooy itteem ak yërmande doomu aadama ji yàlla ko suñu borom gën a dëgëral gën koo kattanal ba lépp loo xam ne yéene na ko ci doomu aadama yi man man ko def da def ko na kawe njottam te ànd ko moom te daje ci ngërëm suñu borom li mu yéene ci diine lislaam itam suñu borom gën koo kattanal gën koo manal ba lépp loo xam ne yéene na ko mën koo def defee nu kawe njottam te ci te te ànd koog moom te daje ci ngërëmu suñu borom képp koo xam ne itam lislaam mooy sab tool ci nga yëg ci nga yëngu yàlla na suñu borom gën a dëgëral yàlla na suñu borom gën a jàppandal yàlla suñ borom gën a taxawu ba li nga xam ne yéene nga ko te bëgg koo def nga def ko def kawe sa njot te ànd koog ña nga ko war a àndal te dañ ci jëng gërëmu suñ borom loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa xinna adaba naar rabbana na samihna munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faxfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma al abrar rabbana wa atina ma waatana ala rusulik